i fils ay boy di my pic may gis di and piis and tiit like gis My six nine fils samay I ay brick ngay gis fake them and chip like nday i am bac plus six I fils and bis day tiis da can tease my missy my gis Step sacrifice li ngay tiit laay kife my king mag one wàññil ñu tegal la tàng na ay ganis laay free teg ko ci baat CMC di cri ma rendi di ay projet miti la public bi laaj projet iyo ak masàllaa nel black day toog fii xaar papaam wi coow li la yenu meen na ko attan man ragalaay xoos te xam naa du fayu rab fi góor la bàyyi dikal wis problème problème problème rek ah, dag ma nday laaj ma ngi sama gàlle yaa ngi wax mais nono dum la faale noos huit bar rek nga fay avant ngay noos rap ma ñaangal si bit bi joxaan ma big bi cobaat si it yi yaa bu mu jëm kaw bi rab bi wàcce maa ko taaw yoon la ma aalu fu ma neex aw bi gem bi neexee yaa fi taasu fii ku fi taasu bendo bu onze yaa ngi koy cons yàq naa gem ci côté yendoo bi ñoddu fi blague mais dinaa la xoos si it yi blague mooy tiital sa fit bi bari fit fis prix mais ngeen fis laa pinu son bi mu génn xeeñ salte sagel musumaay sàcc seen wet goj gene naa diril ah. sëriñ ca laa leen indil da tit fidil projet bi moom miti eh. jaamu ji jeex na jaamu ji jaamu ji jaamu ji billaahi jaamu eh, woo Eh, fu jàmm ji am ba nga ne jeex na bu leen fi jooy li jikko ji génn ay ganisaay free te ko ci baat CMC di cri ma rendi di taaj ay projet miti le public bi laaj